asalaamaaleykum mbokk internet yu DKR 221 xanaa rek dellu seeti di leen nuyu di leen sargal waaye tam di leen tatagal fas yéene di kàkk yéen ci ay xibaar yu wér wóor comme saa su rek ni ñu koy tàmmoo di leen ko defalee fa tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee ab mariage boo xam ne jot naa am fii ci Sénégal ab célébrité ñu gën koo xam ci Asma Khadija bi nga xam ne moom moomee moo nekk ci fi nga xam ne moom moo di ca Sen TV Asma Khadija ma nekk ca Sen TV ko woowee Miss Météo ndax ku ne xam na ni émission bi nga xam ne day am suba teel foofii ca Sen TV moom moo koy anime naka noonee tamit dañ koy gis ci li nga xam ne nii moom moo di ne rek. li nga xam ne nii moom mooy journalu ngoon bi dañu ko cay gis muy def météo waaye ak yeneen moom Asma Khadija nag jamono ji ñu wax ak yéen daal dinay dégg alxayri moom daal dinañ koy maye ni ki rek euh, démb fële ca këram euh, boobu mariage nag nekkul benn yoon lu discret ndax Asma Khadija daal dinañ koy gis nag ci yenn ci sit internet yi naka noonee ci internet beek yeneen yu ni mel mu daal di rek sañse lu weex tàll waaye tam sañse ba rafet di rek rek benn bu baax a baax moom Asma Khadija nag di ko takk bi kenn ku dul ab sénégalo ivoirien moom nag di wuyoo ci turu Pape Touré moom moomee di Pape Touré nag ñëpp nee nañu daal moom moo doonoon première femme ki nga xam ne ni moom mooy Asma Khadija ndaxte nag da yàgg bëgg yàgg koo suivre waaye tam yàgg tekk ci moom bët tax tey jii mu daal di koy jël soxna moom moomee di monsieur Koué nag mu ngi daal di jël Asma Khadija mu nekk nag aawa buuru këram moom sénégalais ivoirien boobee nag mu ngi ne basé wu fële nga xam ne moom moo di ca Côte d'Ivoire googee nga xam ne rek fa la fekk baax waaye tam mu am ay mbokki sénégalais waral tamit ba tax jotam ci ki nga xam ne moom moo di Asma Khadija yomb lool ginnaaw ba nga xamee ne rek da koy gis ci télé bi nee nañ daal dugub zapp mukk gis Asma te taxawul naka noonee tamit dafa xam heure nga xam ne nii yëpp ci la xale bi doon génn ci télé bi mu ko fay kar di ko rek xool bu baax a baax mu mel ni nag seen génn googee ñii ñu ngi naan yàgg na ñii ñu ngi naan yàggul waaye nag ñun lañ ci am ci ay relation mooy yàgg nañoo génn ndax yàgg nañoo xamante ñoom ñaar yàgg nañoo jàppante yàgg nañoo it bëggante ba tax tey jii mu daal leen di jural ab sëy ci sëy boobee sax nag moom mi nga xam ne moom moo di monsieur Touré daal nay teral bu baax a baax kooku di jabaram di Asma Khadija di madame Touré ndax rek daal nay yëkkati li nga xam ne nii rek moom moo di ay baax baax yenn yoo xam ne rek nii bi xale yi daal di koy moom ak dot maanaam may bu njëkk bu toll rek ci tamit ab bu mucc ayib boo xam ne oto ñu bari bëgg waaye tamit daal na koy rek offrir maanaam boole na ci boobule daal di ko cay tega bu cher moom Asma nag mu daal di belli lool ci mbir mi waaye tamit nag mu daal di am mbégte ak moom ak i mbokkam ba tax mariage mariage boobee nag takk nañ ko ci li nga xam ne moom moo di ci kër papam googee moom Asma Khadija nag ku ne xam na ne rek ni ñu ko waxee ci njëlbeen bi ne rek liggéeykat yu télé te it Sen TV googi képp ku koy seetaan di ko fa gis saay boo yeewoo waaye tamit da ko fa gis ci ngoon gi mu doon nag jàmbaar baax ci liggéeyam mbokk yi foofee la ñuy yemandi ak yéen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 deux cent vingt et ma fekk la faag deux cent vingt et un dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci taabalu DKR 221 di ko tas benn par benn naan 2 2 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire tey ngeen dee marié yi am lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax eh DKR 221 abonné